ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. président Macky su yeboo xalaataat nu muy delloosee poste premier ministre ci Sénégal ndax ci gis-gisab yéenekaay bi di observateur wét na lool ci toolab xare bi cundum la def ci kanamu xare boobee du dara lu ko wër nepp karange wala ku koy dékkul balya yéenekaay bu groupe Futur Média dellu si ci li waraloon nag moom jiitu réew mi mu jële fi poste premier ministre ngir mu ne yëf yi gën a gaaw te bar la woon wàññi escalier yi ndaajaar yépp laata signé wala dogal kon liggéey bi askan wi ci boppam ku ca ne ak foo fare ci réew mi nga yëg ko bu baax moo doon yéene bi waaye observateur ne ab diir ginnaaw si faw nag ak nangu ci ne baral googee mu dige woon nekk gul lu jëmmoo am nay observateur sax di aji seetlu yu njort moom président xalaataat ci delloo si post bi donte faw mu jaaraat ci blaalaat beneen ñeel constitution bu Sénégal mu njaay Cissé njiital ONG 3D bokk ci société civile bi ne ndokk su doon boobee poste premier ministre dellu si waat ndax fast bar ca gaaw ca tar na liggéeyub nguur gu Sénégal ngir suqaliwaatu koomu réew mi ginnaaw coronavirus bi laas ne bokk na ci pexe yu mu tëral mooy fomb vacances yi nga xamante ni mooy yu gouvernement bu Sénégal ne ko noonu it juróom-benn weer yoo xamante ni dañuy tegaleb liggéey liggéey bu amul àpp amul noppalu waa aar sunu moomeel ñoom ginnaaw corona bi wàllu mbay mi lañu gis ne jafe-jafe ba ci jéeye sax ku yóbbu ku moyewul mu am ca ñu jàng ko ci waa ñu naan fa opérateurs yi chantage la ñuy def ci Sine Saloum joxewun fa njiw waaye koppar béykat ya jaaxle lool waral ñuy jënd ñu ne njiw moomee ca marché ya lu ma it ñu ne njiw mi 750 francs jàpp 900 francs la ñu ko fay jaayee séddaleem intron yi ci wàllu mbay mit ci kaw gi waa aar sunu moomeel gis ne kumba am ndey ak kumba amul ndey da ca am jàngoro ji moom di coronavirus di wéyal yoonam ak yàqam ci dëkk bi libération ne fukk ak benn ci ñu faatu ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti cas ci ñetti fan kese ak fanweer ak juróomi cas grave ci l'hôpital yi source a ne ko ñun kay on est mal barré maanaam yàqu nañu rek ñeent ñu faatu ñeneen ñëw dolli ko ci lim bi def ko léegi téeméer ak fukk ak juróom-benn ci ñu faatu Sénégal ci jàngoroy coronavirus ndox mi nag am solo lool ci xeex bee coronavirus ndax cet gi mbir mi laaj ndox moomee mooy jafe-jafe ci dëkk bi ci le témoin Mamadou Samb Delko ancien directeur général bu SONES di ci wax ne yooyu jafe-jafe nag du ñu tàggoo ak ñoom lu mooy liggéey KMS 3 gi dafa yegg ñàkkum ndox mi mu ne dafa dem ba cib déficit structurel muy bu njëkk ñu koy dund Sénégal te jot na mu ne nanu ko ni defee woon ci atum 1995 ñu def campagne bu yaatu ci wàllum sensibilisation ñaax askan wi ndox moomee leneen ci yéenekaay yi di union européenne mi tëjal ak jawwam yenn ciy réew ndax coronavirus gi réewum Gabon ca la waaye fulaay jaay Dakar réew mu it daf ne kàpp ay buntam ngir roplaani waa union européenne moo waral ci les échos Samuel Eto'o joueur bu ràññiku ci àddina doomu Cameroun di ca ndokkeel ak félicité ministre Gabon bi naatangoom Alioune Sarr it bu Sénégal mata ndokkeel ak président Sall ci seen tontu ñoom it la genn gi lanu la loi du le quotidien it boobee taxawaayu Sénégal lu ubbee jëm ci yegg union européenne fan nu yegg kese yam nit fanu nu yam couvre-feu bi la mu amoon na njariñ ci Sénégal bokk na ci yóbbu chômage technique sàcc seeg agresseurs yi dafa mel ni nag ak yëkkatiwaat gi seen affaire dafa baaxaa tribune ne agressé gi moom takar naa se waat na muy Bourguiba jet d'eau boulangerie jaune ak gox yu bari ci Ndakaaru du ñàkk xëy na takk der yi police wala gouvernement bu Sénégal indi ci plan de riposte wàllu yoon les échos bi di Souleymane Teliko muy waxi bi ci atte bi na mu waroon coopérer mu ne demee wu ni liggéeykat yi justice yu Sénégal yi ne ci ñaxtoo ki xultu juge ko ne ministre de la justice li ko waroon du lenn lu may mu dalal leen wàllu yokkute la Soleil xëyee nataalu njiitu réew mi mu ne ci chantier gàddu casque sécurité ba yéene kaay bi ne chantier bu bees mooy plan bi jëm ci ñoŋal ak suqali mbooleem gox yi ci Sénégal la mu ci jub lu may fexe ba bool bi dëlle woon fenn fi jeexee fa des rééquilibre maanaam ak yamale amaat gox bu ne yëg suqaliku gi Sud Quotidien moom la mu ko gisal njiitu réew mi présidential mooy ay rendez-vous raté woote lu jëm ci wàllu gouvernance politique bokk na ci ñu ne jëfandikoo gu bare gi loxol yoon ngir dóori adversaire topp jalgatim koppari réew mi ci rëbb ñi bañ a des ak yeneen ak yeneen ñu jeexale làmb jéeg sunu làmb ak combat yu mag yi Gaston Mbengue fas yéene taxawal ngir amateur yi Sénégal Balla Gaye 2 Gris Bordeaux Eumeu seen Bombardier yéene kaay bi ne Gaston alxamis tey ji sax dina ci amal ñaari super ndaje sunu lamb ba tey ak lu ñeel booy Niang ñu ne ginnaaw bi ko Balla Gaye 2 rëccee fa mu jublu léegi mooy ca Tapha